tay ñu délu ci indi leen beneen numéro bu bees ci du jour suñu acte du jour dañuy xool li gën a fës jëm ci ay xibaar ñu daal di koy taataan saytu ko segg ko ba noppi daal di leen koy jox yéen ñi nga xamante ni yéen a taamu chaîne bi di VIP People TV la chaîne des grands événements aujourd'hui mardi 28 novembre 2023 suñ koy tàmbalee dañuy dem fële ca euh, centre Abdou Diouf bu nekk foofu ca euh, euh, Diamniadio Ginnaw bi nga xamanteni li nga xamanteni moy président de la République euh, du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall mi ngi done présider li nga xamanteni moy ouverture euh, forum de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique qui dit président de la République nag Macky Sall yëkëti na fay cadeau ginnaw bi nga xamanteni ni am na ay jafé jafe yoo xamante koy am ci digënté armée bi loolu nag mo suxal li nga xamanteni moy ay effort yo xamanteni ni war na indi développement économique fi, nga xamanteni moy mooy réewu Afrique suñu aussi ci domaine social bi ba tay dit président de la république Macky Sall mi ngi woote démb ci altiné ji manam ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wér novembre atum ñaar junne ñaar fukk ak ñett pour que ñu def lépp dal di jël armes yi notamment li nga xamante moy ay conflits yu dox ci diggante armée bi ak réew mi maanaam di wara plomber li nga xamante moy développement économique ak social bu Afrique ginnaw bi nga xamante ni coût matériel yoy suñ ko sukkandikoo ci coût humain bi indi ay conflits yo xamante ni armée bi la ñu ngi plombé totalement lépp loo xamante ni jëm na ci ay efforts yoo xamante ni dañu sukkandikoo ci voie de développement économique ak social bu continent africain ba noppi daal di ciy teg li nga xamante nag dinañ ko ubbi muy neuvième édition bi nga xamante ni mooy forum international de Dakar jëm ci wàllu jàmm ak sécurité fii ci Afrique ñi nga xamal daal que rencontre internationale boobu daal mi ngi porté wu notamment ci thème bi nga xamante ni mooy Afrique dafa war am ay potentialité jëm ci trouver ay solution ginnaaw bu mu jàkkaarloog ay défis sécuritaires ak instabilité bi nga xamante ni ci wàllu institution constitutionnel ginnaaw loolu nag kii di président Macky Sall ak ki nga chef euh, de l'État de la république islamique de Mauritanie du Mohamed Ould El Ghazouani ak ki nga xamante ni mooy représentant chef d'État, à gouvernement Mon nañ ci citer ki nga xamante ni bu Bissau di Gérardo Martins ak qui di ministre délégué au xamante ni ñoo nekk faut faire affaire étrangère bu Japon di Ori Iyawo ak yeneen délégation officielle yoo xamante ni bokk nañu daal ci li nga cérémonie d'ouverture bobu ay autorités académiques ak militaires yi nga xamante ni suñu du ci ay autorités diplomatiques ak ay représentants yi nga xamante ay partenaires techniques lañu ak financière bu Sénégal participé nañu également ci li nga xamante rencontre bobu nga xamante ni war na am ci diiru ñaari fan. ba tey mi ngi xamal daal jamono ji Afrique dafa pause jëm ci wàllu ay coup d'état pour que ñu mën a gën liggéey pour indi benn développement. ginnaaw loolu nag mi ngi xamal ni que daal dafa jot pour que tey ñu yeewu jël lépp loo xamante ni maanaam arme la wala ngànnaay ñu teg ko éviter coup d'état yi ndaxte a chaque fois coup d'état am. dañuy wat encore à zéro commencé di liguey tank arrêté wuñu xex yi ak guerre yi nga xamanteni dafa lié ay conflit armé manam jëm ci ay coup d'état gis nañu lu melni Mali lu melni Burkina Faso lu melni Niger lu melni tay li xew feulé ci Gabon donc lolu mo retardel Afrique mi ngi xamal dal dañu wara yewu suba buñu jot ginnaw bi nga xamanteni am nañu ay mutineries yo xamanteni ay putsch yi créer Afrique dal mëna développer wu ci ay conditions yo xamanteni manam lépp lo xamanteni jëm na ci lo xamanteni dañuy tek li nga xamanteni moy arme yi bàyyi di jël état ci ay coup d' état ba tey kii nga xamante ni mooy son excellence le chef de l' du Sénégal Macky Sall mi ngi estimé wu nga que lépp loo xamante ni jëm na ci ay guerre dafay indi atteinte jëm si instabilité constitutionnelle ba noppi day joxe benn mauvaise perception jëm ci contribué wu lépp loo xamante ni dafa war a enrichir lii di crédit yi war a sukkandiku dugg fii ci Afrique. ba tey mi ngi xamal ni que ay conflit la yoo xamante ni ak instabilité yoo xamante ni institutionnelle la dafay coûter cher Afrique ginnaaw bi nga xamante ni day contribuer wu ci lépp loo xamante ni dafa war a enrichir li nga xamante ni mooy jëm ci wàllu crédit ba noppi daal di def li nga xamante ni mooy continent africain benn bon boo xamante ni arrière lay doon si diggante soixante ak soixante cinq ans ba tey kii di président Macky mi ngi regretter daal bu baax a baax li xamante ni mooy. guerre yi nga xamante mi ngi am ak ginnaaw coup d'état yi nga xamante ni ngi koy def yenn pays fii ci Afrique ba tey mi ngi xamal daal war nañu mën a remarquer lépp loo xamante ni jëm na ci temps ni mooy dialogue toog waxtaan pour régler lépp loo xamante ni doon na ay différend wala ay jafe-jafe ci diggante pays Afrique yi na surmonter lépp loo xamante ni jëm na si clivage jëm ci ay partisans pour que ñu bâtir li nga xamante mooy ay coalition yu nécessaire jëm ci ay stabilité yoo xamante institution constitution bi ba nopi dal di développer li nga xamanteni moy pays Afrique bu nek and ak philosophie boo xamante ci dialogue national lañ koy préconiser en tout cas muy li nga xamanteni dal ki di président Macky Sall yëkkati na ko démb bu mu jëlé kàddu ci ouverture li di forum de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique ginnaw conflit armé yi daal ñu ngi plombé bu baaxa baax effort yi nga xamanteni jëm na ci développement économique ak social du continent africain bi ba tey ci biir euh, ouverture forum Bobu qui dit président Macky Sall mi ngi ñew ci lepp lo xamanteni na ci transplantation rénale bi nga xamanteni réussir nañ ko fi ci Sénégal muy benn nouvelle bu performante bo xamanteni ni évoqué nañ ko fofu ci Afrique mu jëm ci ay solution yo xamanteni ay suñu sukkandikoo ci ki nga xamanteni moy président de la République du Sénégal son excellence euh, Macky Sall mi ngi saluer bu baax baax première opération bi nga xamanteni réussir nañ ko jëm ci transplantation rénale bi nga xamanteni effectué nañ ko par équipe médicale sénégalaise bi nga xamanteni ñoo réjouir ci benn excellence performance performance bi ñu participer ci li nga xamanteni moy Afrique ba nopi daal di indi ay solution mi ngi ciy wax tamit li di Afrique ak ay solution yo xamanteni mëna indi pour ñu saluer les lo xamanteni jëm na ci ay performance yo xamanteni réussir nañ ko dimanche ak équipe yi nga xamanteni moy équipe médicale yi ci ben conduite bo xamanteni ki di professeur Elage Farika moko jité won ginnaw bu mu réussir ñaari première opération yi nga xamanteni ni suñu sukkandikoo ci transplantation rénale la doon fii ci Sénégal ba noppi mu daal di koy féliciter ki nga xamanteni ni mooy docteur El Farika Macky Sall daal mi ngi prononcé wu ci discours d'ouverture bi nga xamante ni mooy neuvième édition forum international de Dakar.

xamal ni que daal am nay feebar yoo xamante ni yu chronique la te dafay rey ñun ñu bëri fii ci Afrique ba noppi ñu ànd ceeg ay centre yoo xamante ni centre de dialyse la yi nga xamante ni lu mu mënte doon ci nombre bi daal mën nañu def loo xamante ni suffisamment kii di chef de l'État dinañ ko mën a wàññi Sénégalais yi jàppale leen ci ka Afrique mën a régler seen yenn problème mais ci kaw ñu teg armes yi bàyyi coup d'état yi wàññi guerre yu bëri pour wàññi li nga xamante ni mooy instabilité institutionnelle yi ba tey ginnaaw loolu mi ngi xamal ni que ginnaaw première expérience bi nga xamante ni réussir nañ ko jëm ci transplantation rénale mi ngi xamal ni que daal décidé nañu liggéey ak ñëpp koo xamante ni am nga transformation jëm ci ku ci lépp loo xamante ni ay transformation oculaire lay doon ba noppi daal di doon ay médecins yoo xamante ni. tay suñu leen xayma mën nañu aventurer ci benn terrain boo xamante ni tey mën na indi ay progrès jëm ci lépp loo xamante ni war nañ ko mën def jëm si suñu wàllu wér yaram ba tey muy première transplantation rénale bi nga xamante ni réalisé nañ ko le 26 novembre 2023 fii ci Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni couple donneur bi ak receveur bi ñoom actuellement ñi ngi ci jàmm ak salaam wér yaram bu ma sëkk ginnaaw bu mu ko indiqué ci benn communiqué boo xamante ni conseil national du don de la transplantation moom moo ko muy CNDT bi réjour que lepp lo xamanteni ni jëm na ci transplantation rénale nek na tay ben réalité bo xamanteni fi suñu réew muy Sénégal ginnaw bi nga xamanteni ay performances yo xamanteni yëkëti nañ ko jëm suñu république ba nopi daal di cercler lépp loo xamante ni jëm na ci ay restants jëm ci ay nations yo xamanteni ni mën na offrir ay types de soins yo xamanteni population bi dinañ ko soxla mu doonoon ben communiqué bo xamanteni ni ñu ngi fàttalikul lépp lu jëm ci ay transplantation rénale mi ngi joxe ben regain bo xamanteni espoir lay indi ci ay ay sénégalais yu bari ak ay patients yo xamante dañu tok pour xaar ñi greffer leen mbaa defal len ay dialyse ba noppi daal si yokk lépp luy première soins dinañ ko suivre bu baax a baax ba noppi dal ci ciy yokk yeneen jéego yoo xamante mën na gëna améliorer lool mu tekki li nga xamanteni moy suppléance bo xamanteni suñ ko sukkandikoo ci hémodialyse bi ak lu mu mënta doon mën na doon benn solution bo xamanteni ni mën nañ ko offrir képp ko xamanteni ni patient nga te da nga am maladie rénale bo xamanteni terminal en tout cas muy li nga xamanteni da réussir nañ ko fi ci Sénégal muy deux opérations yo xamanteni walu transplantation rénale la réussir nañ ko ci benn performance bo xamanteni def nañ ko dal fi ci ndakaaru ginnaw bi nga xamanteni kiko jité di docteur bi di elage Farika ginnaw bu mu réussir ñaari première opération transplantation rénale yooyu Macky Sall nak diko ko diko féliciter di wo africain yi que mën nañu joxante loxo joxante ay djégo ba ci yu bëri ñu mën ko defal suñu bopp ci yenn condition nak ñi jël lepp lo xamanteni jëm na ci ay xeex ay guerre ay kay coup d'état ñi teg ko ci tuuf ba nopi dal di privilégier li nga xamanteni moy dialogue national ba tey foofu la ñuy toujours manam ci forum de Dakar pour la paix avec la sécurité en Afrique nous avons ko démb centre de conférence Abdou Diouf nekk ca Diamniadio relations internationales avec Yakarnani, nous ni le bilan bi bilan diplomatique bi nga le président de la République Macky Sall depuis son accession au pouvoir en 2012 tay ñu ko fay magnifier manam diko santé diko glorifier manam diko ko diko di féliciter li nga xamanteni réussir na jëm ci walu Afrique ba tay ci marge la ñuy muy ouverture bi nga xamanteni amna le 27 novembre 2023. 2023 muy neuvième forum international jëm ci Dakar euh, sur la paix ak li nga xamante ni sécurité en Afrique muy ay membres yoo xamante corps diplomatique sénégalais qui ci bëri ay catégories yoo xamante ni ci nekk apprécié na lépp luy éloge boo xamante ni bilan diplomatique boo xamante ni tey yaakaar ni sénégalais beau gis daal ci catégorie boo mënti ñi ngi apprécier li nga xamante ni consulaire yi ak président de la république Macky Sall ginnaaw bi nga xamante ni am ay jéego yu positif yo xamante ni teg ci initiative bi nga xamante ni échelle internationale ba tey suñu xoolee ci benn émotion boo xamante ni koy jaajeufal bu baax kiko lire nak du kenn ku dul ki nga xamanteni moy Cheikh ñaar di ambassadeur représentant permanent du Sénégal fof euh, ci Nations Unies bu New York ginnaw bi nga xamanteni ay diplomate sénégalais salué nañu li di priorité bi nga xamanteni ni élevé nañ ko ginnaw bu ñu sukkandikoo ci accordé li di consolidation jëm ci ay liens d'amitié jëm ci ay coopération ak co-développement ginnaw bi nga xamanteni ay réew yo xamanteni ay xarit lañu di ay frères frontaliers ginnaw bi ñu permettre ginnaw ñom ñëpp ñi accueillir li di construction construction ay pont yu wàll lu melni pont wu bi lu melni pont wu Farafeñe ak li nga xamante mo nek en cours diggante Rosso Sénégal ak Mauritanie ak exploitation bi nga xamante commune la diggante Sénégal ak Mauritanie jëm ci jugement bi nga xamante moy gazier bi don ben torture bo xamante ay ni yenn ni ñoko indi ginnaw bu mu waxé nak lepp lo xamante satisfaire na rôle de première plan jëm ci wàllu dynamisation boo xamante ni accru la jëm ci ay organisation yoo xamante ni si sous sous régional la nekk comme lu mel ni UEMOA UMVS OMVG ak li nga xamante ni mooy CEDEAO nekk en parfaite intelligence jëm ci ay paires yoo xamante ni pour benn espace la jëm ci sous région Pacifique bi ba noppi daal solidariser lépp loo xamante ni ay jéego la yoo xamante ni day indi naataange ci suñuy réew Afrique ba noppi ñu ngi ciy xamal ni que daal bi ñu magnifier li nga xamante ni ay initiative yu bëre yoo xamante ni sukkandiku nañ jëm ci jàmm fii ci Afrique. ginnaaw bi nga xamante ni si biti continent bi lépp loo xamante ni jël nañ ci part kii di président Macky bokk na ci ba noppi daal di visiter li nga xamante ni mooy Sotchi en fédération ak li nga xamante ni mooy Russie ginnaaw bi nga xamante ni réussir na lépp loo xamante ni jëm na ci ay objectifs pour participer. résolution bi nga xamanteni crise bi nga xamanteni moy crise alimentaire ginnaw bi ñu nekké ci pleine pandémie Covid 19. muy garder également li nga xamanteni moy xelam jëm ci walu société wala présidence bu Sénégal wara and ak ay organes yu important suñu sukkandikoo ci organisation des Nations Unies bi nga xamanteni conseil de sécurité ak li nga xamanteni moy conseil des droits de l'homme ànd ci commission bi nga xamanteni moy assemblée générale de la sur les questions économiques ak financement jëm ci walu lepp lo xamanteni tay ay commission de développement la social ba nopi dal di relever lepp lo xamanteni tay tey mi ngi également jëm ci ay élections yo xamanteni tay nomination wala plusieurs cadres yo xamanteni ni suñu réew lañu nek ginnaw bi nga xamanteni ay postes yo xamanteni élevé nañ ko ci kaw li nga xamanteni moy ay diverses institutions internationales ba nopi dal di indi élargissement le significatif de ci carte bi nga la carte diplomatique du Sénégal mu constitué wu tay diplomatiques, bi ginnaw biñu ci 53 représentations diplomatiques, ak missions consulaires en tout cas le nga xamanteni président de la République ay djégo yu mu def ci walu diplomatie muy bilan bo xamanteni salué nañ ko forum de Dakar sur la paix et la sécurité ici en Afrique